jërë ngeen jëf salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna mbokk yi ñu ngi leen di nuyu saa su ne di leen daan nuyoo fii ci Sénégal Buzz 221 nu ñu koy defee rek di ànd ak yéen li nga xamante ni moo di actualité du jour. actualité du jour ñu fas yéene ko dooree njàngat bi nga xamante ni sénégalais génn nañ wane ko ci li nga xamante ni moo di la Covid 19. gannaaw loolee ñu ñëw ci li nga xamante ni moo di Iran Ndao génn na di wax ci li nga xamante ni tey moo di mbir mi ñu tekk ci kaw Bougane Gueye Dany di xamal ne rek day liggéey loolu li nga xamante xamante ni tey moo di employé am te du leen fay gannaaw ba mu jógee ci point boobu mu ñëwaalaat di xamlewaat li nga xamante ni tey moo di mbirum yàqante der bi nga xamante ne ñu ngi koy ja yàqante der si suñu réew loolee lépp rek doonoon ci mbirum njoletaal ak Sankara Mbaye ba tey rek oustaz Iran Ndaw laal na ci gannaaw ba ñu jógee ci point boobu noonu ñu ñëw ci li nga xamante ni moo di mbirum jaari saw di xamal ne rek nee na ñu ne feeñ na gis nañ ko ci réew moomee noonu di France gannaaw ba ñu ko gisee rek teg nañ ko ci li nga xamante ni moo di loxo consulant ñu ci point boobu noonu di jaar yi saw ñu ñëwaat ci li nga xamante ni moo di mbirum Moguette Moguette nag ba ñu ñëwee ci li nga xamante ni moo di mbiram gis nañu ñi nga xamante ni tey ñoom lay àndal di ay doomu sénégalais def ay sorties yu xamante ne génn nañ ko ngir wax ki nga xamante ni kan mooy Moguette gannaaw loolu mbokk yi ñu dëgtal leen li nga xamante ni tey moo di actualité bi jërë ngeen jëf. jërë ngeen mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna. mbokk yi ñu ngi leen nuy rek ndax leen daan nuyu saa su ne fii ci Sénégal Buzz 221 Euh, ni ñu koy defee rek saa su ne di ànd ak yéen ci li nga xamante ni moo di actualité du jour actualité du jour ñu ànd ko ak yéen rek saa su tey ñu fas yéene ko dooree ak li nga xamante ni moo di jàngatu sénégalais yi nga xamante ni tey moom lañ jàngat ci mbas mi nga xamante ni moo di coronavirus jàngat bi nga xamante ne nag am nañu ko ci mbas mi di coronavirus ne bi nga xamante ne doxalin bi nga xamante ne mi ngi koy doxee ci réew mi gëmuñ ne wala ñu gis ni dina fi gaaw a jugee ndax bu ñu xoolee lépp la nga xamante ni tey jëlool nañu ko ci ay dogal ngir xeex jëlee li nga xamante ni tey moo di jàngoro ji di coronavirus ña ngay xool gis na ni lépp li nga xamante ni moo di activité yi di dajale li nga xamante ni tey moo di yenn resemblement yi ñu ngi koy gis mi ngi dox ba tey ndax it bu ñu xoolee lenn ci ay ngénte wala yu si mel ni mariage wala dëj yi sax ñu ngi gis lépp li nga xamante ni tey moo di ay resemblement nit ñi di ko fa def waaye ba loole rek dañuy am jàngat boo xamante ni ñoom gëm nañ ni loolee di xeexu coronavirus bi du gaaw a jóg fii nga xamante ni moo di ci Sénégal loole nag doon jàngat boo xamante ni nag askan bi ñoo ko jàngat di gis ko mu doon doxalin boo xamante ni tey ci réew mi waaye nag laal nañ li nga xamante ni tey moo di tëj bi xamante ni tey tëj leen ko di waxaat rek ne ki nga xamante ni tey moo di njiiti réew mi ne tëj bi doon na loo xamante ni tamit gàllankoor la gu tegu seen kaw waaye tamit ba tey rek amul lenn loo xamante ni gis nañ ko seen njëriñ loo xamante ni xamante ni moo di coronavirus bi fii ci réew mi ba tey bu ñu jugandee ci li nga xamante ni tey moo di mbirum coronavirus ñu laal ca xale bi nga xamante ni moo di jaari saw gis ko ci ko suñu mbokku nataango boobu ni tey moo di France waaye ci gis boobee noonu nag ay autorité yi nga xamante ni tey ay doomu Sénégalais lañ ñoo gis ko kee di jaari saw waaye ba ñu ko gisee jël nañu ko yóbbu ko ci li nga xamante ni tey moo di consulat ba ginnaaw loolu Serigne Mbaye Thiam mi nga xamante ni moo di pareewam bi mu yëgee mbir moom jël na li nga xamante ni moo di vol dem foofe nga xamante ni tey moo di France ngir gis ki nga xamante ni tey moo di jaari saw loole tamit doon xibaar bi nga xamante ni tey yaakaar naa ne sénégalais yi bëgg nañ ci kontaan nañ ci ngir retrouver waat seen doom joojee nga xamante ni tey moo di jaari saw bu ñu jugee ci loolu ñu del si li nga xamante ni tey moo di l'affaire de policier radié yaakaar naa ne mu doonoon loo xamante ni tey yëngaloon na dëkk bi fan yi ndax li nga xamante ni Bougane Gueye defoon na ko recruter policier boobee noonu nga xamante ni moom la ñu radié ñu bëri nag yëkkati ci ay kàddu di xam ne ni rek buggaan ma ngay def jëf jooju waaye bëri na li nga xamante ni moo di ay employé di leen liggéeyloo te du leen fay ci kaw loolee nag ñu gis ki nga xamante ni moo di Iran Ndaw génn na du si jox ci loolee noonu nga xamante ni moo di ay leeral di xam leen ne sénégalais rek loolee ay wax la yoo xamante ni nag waxul naxasa fand na wax la yoo xamante ne na waxu yàq la ak leneen ak leneen waaye moom xam na buggaan xam boo xamante ni du liggéeyloo li nga xamante ni moo di ay employé am te du leen fay ci kaw noonee rek moom Iran nee na yàgg na toog ay li nga xamante ni ñoo di ay chauffeur di liggéey ci foofee di nga xamante ni moo di des médias ñëw di def li nga xamante ni moo di ay témoignages yu Bougane Gueye lépp rek nga xamante ni tey ngir liggéey ak seq liggéey bu rafet bu muy def ak ñoom moo tax ñu def loolu noonu ba tey Iran mu ngi ñuy xamal ne mbir yi nga xamante ni tey yàgg na fay xew ci réew mi buggaan doon na bokk ci ñi nga xamante ne ñooy njëkk jug def ci li nga xamante ne moo di wane seen bopp mbënd mi bi mu ñëwee Iran lim na ko nee na Bougane bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo jug def li nga xamante ni tey ñoo di ay téléthon ba ci mbas mii di coronavirus rek bi mu ñëwee ci réew mi moom buggaan Gueye bokk na ci ñu njëkk a jug def li nga xamante ne moo di sensibilisation ci réew mi kon loolu yooyu kàddu yi nga xamante ne rek ñu ngi koy waxal naan ko day liggéey li nga xamante ne moo di ay nattaangoom te du leen fay loolu ay kàddu yi nga xamante ne rek ay kàddu jaxase la ba tey mbokk yi ñu dugg des si li nga xamante ni moo di kaawu moo gét kaawu moo gét nag ba ñu ciy desindee ba tey coow li nga xamante ni tey fa nga mu ngi jug ci ki nga xamante ni tey moo di aadamoo ci kaw loolee gis nañ ñi nga xamante ni ñooy ànd ak ki nga xamante ni ñoo di moo <clears throat> ñu mën cee lim ñett ñi nga xamante ne ñoom la ñu gën a ràññee si suñu Sénégal gi ñu di ay mbër di ay champion ku ci mel ni Abdou juuf gis nañu ko mu def sortie bi nga xamante ni tey jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni moo di àdduna rawatina ñi nga xamante ni ñoo di sénégalais ngir. seetal li nga xamante ni moo di deru moo gét ci kaw Abdou Diouf noonu ñoom it gis nañ ki nga xamante ni moo di guy gi moom it génn na jàkkaarloog askan bi di leen wax li nga xamante ni tey moom la dund ak ki nga xamante ni moo di moo gét ba ci liru jaan moom it nee na wax na kàddu yi nga xamante ne ñu ngi koy yëkkati di ko teg ci moo gét ci lu ñaaw ba kàddu bi nga xamante ne sax yëkkati woon na ko ne ko moo gét futur président loolee moo tey moo moom la neex ndax su ko neexee mu wax loolee moo gét ndax moo ko jëlee fi nga xamante ni moo di Sénégal yóbbu ko États-Unis jëndal ko billet dalal ko ci hôtel di ko jox muy lekk di ko jox muy naan kon su ko neexee ne moo get futur président ci kaw noonu rek ba tey Abdou Diouf mi nga xamante ni tey bokk na ci li nga xamante ni moo di entourage yu moo get bokk ci li nga xamante ni moo di sécurité moom mi ngi xamal ni social bi nga xamante ni tey moo mi ngi koy dund dem na ba lim yi nga xamante ni tey mi ngi koy def di dimbali li nga xamante ni tey moo di ay étudiants di jàppale ñi nga xamante ni tey ñoo di ay néew gi dellu mu xam leen ak ñu mu xamut ba ci ñoom mi nga xamante ne rek ñu ngi liggéey ak moo get keroog ba ñu nee cëpp foofee nga xamante ni tey moo di Las Vegas yëkkati na ku ci nekk 1500 dollars teg ko ci sa loxo mu doon loolee nga xamante ni tey moo di sa argent de poche kon leen leneen li ngay xam ne rek nit ñee ngi koy wax ci jaxase ak boole ki nga xamante ni tey moo di Mogates yooyu yëpp doon na mbir yi nga xamante ni tey lijjantiwuñu ko waaye ba tey rek Iran Ndaw ñu doon ñu doon waxtaan ak moom ci li nga xamante ni tey euh, moo di mbiru Ndiolé ñu déggoon ko tamit mu koy leeral ci benn maison de presse di xamal ni rek loolee nga xamante ni tey moo di waxu yàq ak waxu jaxase yàgg na fi nga xamante ni tey moo di ci àdduna waaye rek li nga xamante ne tey wanewaat na ko ci diine jàngalewaat ko ci diine ne diine li nga xamante ne moom la ñu xamal mooy nit balaa ngaa taxaw ne gis nañ ko muy njaalo na ko ñeent jullit gis ko te doon li nga xamante ni tey ñu wér nañ seen diine ñoo ñooñee mën a doon li nga xamante ni moo di seede bi waaye kàddu yi nga xamante ne ñu ngi koy yëkkati ci internet bi di ko wax loolee ay kàddu la yoo xamante ne rek tasut sëy yàqut li nga xamante ni tamit moo di nit wala dara loole rek doonoon ay kàddu yi nga xamante ne ba tey rek jële woon nañ ko si ki nga xamante ni tey moo di Iran ba tey rek ñu laal ci li nga xamante ni moo di sport ñu gis ki nga xamante ni moo di cat bu booy Bambara moom it toog ba foofee nga xamante ni moo di États-Unis yëkkati ay kàddu yëkkati ay kàddu yu am solo di kàddum njaal di kàddum tiis yëkkati ko si suñu papa Boy Bambara nga xamante ne fan yi passé la ñu wan ginnaaw dëdduñu ñi ñaan yàlla yàlla yërëm ko te xaaree ko ajana caat nag jaal na ko képp koo xamante ne yaa ngi ci làmb jaal ko ñëpp ki nga xamante ni tamit ñoo bëggoon waajuram boobu noonu di ki nga xamante ni tey moo di Boy Bambara jàppale ko ci làmb ba mu doon li nga xamante ni moom la doon tey loolee doon ay kàddu yoo xamante ne rek caat moo ko yëkkati woon ko tegaat ci kaw njabootu làmb mbokk yi tey loola fi xuuse woon ci li nga xamante ni tey moo di actualité li nga xamante ni tey moo di ay xibaar ñu àndoon ak yéen rek ci actualité du jour di kontaan di leen jox dig daje ci beneen numéro